c'est pas vrai lii ku amul kii sunu doom la dafa juumoon te yu jégul nga ma ba am nga permis mu ngeen bàyyi seen affaire naa fekk yi ngeen def yow dimbali ma saytaane nga yow yow kii bi ngi nekk ñun ñoo ngi ñaan njéggal di ñaan nga may wax naan ma ma am nga permis ah affaire saytaane yooyu affaire dafa yaa yooyu waaye arrête waay sa hunta ay saytaan rek nga yéen ñëpp a seen ma la motif mi ngi ñëw yéen du yéen a ngeen a ay motif jàmbur waaye yéen seen i motif mi ngi ñëw mi ngi ñëw ay caga ngeen yéen ñëpp journal yëpp xaw ma moom ma ko dama kaa am ah, moom moo ko. solennellement. Eh. solennellement non ñu ñaan solennellement non non ñaan. solennellement. di ñaan yàlla. at li bëgg ñu ñaan solennellement. di jégalu. ku dul juum amul Sidy xale la ta dafa juum. dafa juum ñoo ngi jégalu bu baax a baax a baax te am nañ ci yaakaar. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax am nañ ci yaakaar te gis nañ taxawaay bépp nag waaye ne daal xale bi aba niir la. te réew mee ko soxla te réew mee ko ñor te ñëpp ko bëgg lii wane na ko tey soo ñëw tribunalu Guédiawaye lii wane na ko tribunalu dakaar lii wane na ko tey ñi fi teew ak journaliste yëpp ñëw teew fi ah Sidi daa bokk ci réew mi nag Sidi daa bokk ci réew mi lii cet la nag man cet laa ko jàppee waaye yàlla na fi yem te yàlla na nekk ak càggatam yàlla na fa jaaree ay affaire am yëpp takk affaire am yëpp baax loolu daal lañ koy ñaanal ndax sunu doom la sunu doom la sunu jarbaat la sunu rakk la nekk doomu way teg ci ndax ñun amuñu fenn fu dul géejaway waaw ñoo ngi masawu ñëpp nag di jégalu ñëpp ñëpp fansam yëpp ñoo ngi jébul gis nañ taxawaay bi gis ñun daal li ñuy ñaan sunu justice ñu jéggul dañuy jéggulu dañuy jéggul tey tuub dañoo juum si sunu doom la dafa juum te ku dul juum amul ku juum amul foofu daal laa mën a yem am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax si di vraiment ku yaru la ku baax la ku joxe cër la xamee nay papaam xamee nay nijaayam xamee nay frère am voilà kon nag li ci des mooy jégalu rek te am nañ ci yaakaar baax a baax jërë ngeen def kontaan na vraiment gis naa tamit Matar suba teel taxawaay bi ah, ah, ah vraiment ni ñu ko taxawoo waaye daal Sidi doom la Sidi lépp la Matar Diop suba teel vraiment ñoo ngi lay masawu baax a baax baax a baax gis naa taxawaay a baax a baax a baax at masawu staff Sidi bi yëpp yëpp yëpp di leen jégalu bu baax a baax a li erreur la ku lu amul Sidi xale la vraiment kontaan na jërë ngeen def. am yaakaar ci euh, jugement bi li nga a joxe fii ak ci kanam. non si am naa ci yaakaar yëpp ay délit non d' accord waaye dañoo tuub tey jégalu. waaw ah, dañuy waaye dañuy tuub tey jégalu ñun ñoo tooñ ah. ñu tuub tey jégalu am nañ ci yaakaar baax a baax a baax a baax ndax suñu suñu réew yoon rek la ñuy doxal. yoon nag la ñuy doxal te dañuy liggéey yoon nag la ñuy doxal am nañ ci yaakaar suñu justice daal baax a baax a baax am nañ yaakaar tey dinañ ko bàyyi incha allah rek mu réer a ji wax ak yow ba nga wax ci li nga xam ne ci ngay yëngu. waaw lamb ji lamb ji fan yi yëngu la. waaw ndax ñu ngi euh, bu waa ji nekk extérieur def. waaw wax ci ay le motif bu rek reporter rek journaliste yu <laughs> xamul. waaw xam nga le motif yooyu. waaw xam non non bu mu la jombal xam nga yooyu <laughs> ah. indiwu ma fi te bu leen ma yëngal ci dugal ci ay motif <laughs> loolu may man man na ma yàlla bu sal <laughs> sama ma ne <laughs> dégg naa koo xam ne bëri woon na ba bëreetul yooyu man daal yàlla na ma yàlla suturaal yal na ma yàlla suturaal ba ba mu gis sama la motif ndax xam na am na ñu ko yàkkam ci lool lool lool lool lool lool waaye nag na ma yàlla suturaal ba ñooñu ko yàkkam yàlla bu ñu gis sama la motif yàlla buñ ko yàlla bu ñu gis motif ku dëkk sax géejawaay faaf loolu daal laay ñaan ndax xam naa ne am na ñoo xam ni yàkkamti nañu motifi liiru jaan waaw waaw euh, euh, at lu mënta doon nag at ku mënta doon nag solennellement dañuy waxante rek dëgg nañuy suturaalante nan suturaalante ndax àdduna solo loo dafay jeex te ñëpp ñii dañoo am njaboot ñi yor euh, ay parents ñii am ñu leen bëgg ah, léegi li ñuy wax daal moom benn affaire laay daa wax nan suturaalante nan ndax fi ah ay le motif Ah, ay la motif yàlla na yàlla musal la ay eh, waay sama la motif yàlla bu ko kenn gis ay sama la motif yàlla bu ko gis na xam ne am na ñoo xam ne ñoo yàkkamti gis motif bi liiru jaan jërë ngeen jëf wasalaam yàlla na koy yàlla yàlla na yàlla suturaal daal ci réew mi nan ñu suturaante nan suturaante ma ne sa waay may la xoola sa dimbali ma dim eh xoola booy dama lay wax bu ma fontoo nga am waa am na ci booy xoola dama lay wax ma xoola waa géej waaye am nañ ci ñu jàmm de dimbali ñu de ñaa waa géej su amee xaalis journaliste tamit am na ci mbër lañ tudd ay mbëru géej waaye. non non non non c'est pas vrai. nga ne waaw. reporter yi. reporter lamb ah. ah, ah booy reporter lamb. waxoo journal reporter lamb nga wax. am na ci su ma di ah waaw yàlla na yàlla ma doon su ma di fii nañu suturaalante nañu suturaalante nan suturaalante jërë ngeen jëf wasa affaire Sidi Diop daal moon fi indi woon sunu doom ji ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla génn mu delluwaat si njaboot bi te lii ak càngat la rek balaa gis si moom ak càngat la. yàlla na fi yem su fi jaaree yàlla na affaire am yëpp yàlla tàkk yàlla na yëpp tàkk xam nga moo tax ndeysaan gis nga showbiz bi su may wax gis gars yi di sànnante xeer di waxante wax yu ñaaw léeg-léeg lépp showbiz la xool ko tey lii am tey façon artiste bu nekk nga fi artiste bu ne gis naa ko fi tey ko artiste bu ne moo tax ku ci wax na nga wax loo xam suq yeeg cogg yi dong ñoo fi nekk di taxay toj toj di jaxase nit ñi nan ko bàyyi fii tey xoolal artiste yëpp gis naa ko parce que artiste yëpp gis naa ah na leen bàyyi waxante yu ñaaw loolu baaxul waxante lu ñaaw baaxul ah ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay dañuy liggéey rek soo biis la su jeexee jeex na waaye kenn yéenewu sa morom lu bon ndax lii tey wane na ko ndax tey gis naa fi artiste yëpp Sidy daal suñu doom la yàlla na ko yàlla defal jàmm tey ji daal yàlla na reere ji këram te am naa ci yaakaar jërë ngeen jëf merci ok jërë ngeen jëf waaw maa leen di fay di fay ñëpp di xaar ñëpp ñuy xaar rek ñaan yàlla génn ko fi léegi léegi te yéen ñëpp moom ngeen di xaar ndax nag li du lu yomb lu metti la kenn waru ko yéene kenn ci àdduna dañuy ñaan yàlla jëlee ko fi léegi léegi léegi léegi waaw ñun loolu rek lañ ci ci leneen incha allahu rabbi. d'accord mhm. bu nekk ci ngay jàngee ndax tey jii euh, nit ku nekk boo amee ndogal ci dara si ngay jël loolu tiré ci leçon te nit ku dul jum amul ndax ñun ñuy taxaw fii ñëpp mënoon na nekk tey jii kenn si ñun. te xam nga dañuy ñaan yàlla waaw ñu jégal ko rek xam ni ndaw la aussi ñu ko yaakaar bëri nañ ñu ñëpp nag ay nit lañ te nag euh, dëgg la loi daa am mais ku dul jum aussi amul te tamit boo jumee ñaan rek nga mën a def waaw ñun ñëpp tey jii ci turu artistes ñu ngi ñaan xam nga yàlla jëlee ko fi léegi ñu jégal ko loolu la ñaan di ñaan tamit ñi fi nekk ñëpp yàlla jégal leen yàlla jëlee leen fa tamit ñëpp ñu fa ne aussi eh. alors Bass euh, nouvelle bi. naka mhm. nga ko yëgee ak ci yenn circonstances la fekk ndax aussi bi nga ko yëgee gëm nga ni bassesse yooyu noonu lañ mën a jàppee Sidy Diop. waaw euh, nu ma ko yëgee comme ni ngeen ko yëgee rek tournée gis ko ci internet bi xam nga mun naa ne Sidy man ak moom ñoo gën a dend su mun naa ne suñu këree dend kon Sidy man mbiram kenn waruma ci jiitu lu ma si Sidy war a jiitu mu yëg ci man maa war a jiitu waaw ni ma ko tamit mooy ni ngeen ko yëgee te tam ñu ñëpp yëg ko mu metti ñu du nouvelle bu neex kenn ku mu neex rek doo ñut loolu kese la alors li ñu koy reproché di ko wax ne en tant que artiste bu mag. Mhm. di dawal san permis nii oto boo xamante ne amul assurance et tout. Mhm. est que jàpp nga ni loolu war na ci koo xamante ni dañu koy tudd te buñ ko tuddee Sénégal yëpp dañ koy xam. non mooy li ñu wax rek xam nga jumte moom bu ñu demee ba wax ko rek mooy nit ki jum na te ku dul jum amul mooy li ma wax sànq laay waxaat rek te jii li ko dal mënoon na ma dal war mënoon na la dal yow mii di wax ak man mënoon na dal keneen ak keneen erreur la te ku dul jum si àddina moom amul. amaana yàlla moo tuddoon tamit lii ci dessin dañu ñaan yàlla xam nga jëlee ko fi moom tamit xam nga bu ci jéenee rek incha allah kenn bàyyi xel ci yu bari ñun tamit ñu jëlee lii ci lii leçon bàyyi xel ci lu bëri ak keneen ak keneen ku gis li rek bàyyi ci xel loolu kese la te incha allah yàlla na ko fi yàlla jële yàlla ko fi yàlla jëlee léegi léegi waaw. contrat mi bari na instant yi ma ngi ci ay loxoy yoon. Mhm. est-ce que bu juge bi bàyyiwul xel ci loolu. Mhm. Euh, du ko jural ay jafe-jafe ci wàllum liggéeyam est-ce que doo euh, yëkkati ay kaddu rek par rapport ak jugement bi nga xamante ni mooy kaddu ñaan. Mhm. Euh, par rapport ak àtte bi comme ni ñu ko waxee sànq. waa fii ku fi def benn fan de sa liggéey mun na am jafe-jafe. ndax dafa am loo xamante ni aussi am na ñu fa nekk te xamuñu am na ñu ne tey jii te bonuñu am nañu fa ñëw te musuñu def lu ñaaw kon tey jii ku fa nekk sa liggéey aussi dina xaw a yëngu waaw dañuy ñaan yàlla daal galoo xam nga man wax bi sax mënu ma ko mais tamit ñun ak yéen ñoo bokk mbir mi ñun tey jii loolu ñu soxla ñu war a taxaw wax ñu ne nit euh, dellu ginnaaw di wane ginnaaw déedéet man moom heure boo ma soxlaa dama war a wax damay wax parce que tamit ñun lu ñu mënti xewle ci àdduna yéenay bàyyi seen lépp des fois ngeen ñëw doo leen añ des ngeen ñëw doo leen ndékki doo leen reer bàyyi seen lépp ñëw taxaw di couvrir gars ñëw taxaw di wane gars di di xamale li xew kon ñun respect bi dañ leen koy delloo ndax ñun ñëpp amuñu seen fay waaw dañuy ñaan yàlla tamit yéen liggéey bi yàlla defal leen ci tawféex yàlla defal leen ci jàmm quoi ndax tàng na ngeen taxaw nii tamit xam nga di xaar ku ñëw ngeen wax moom kon tamit kenn du yéen quoi yéen tamit seen soutien a ngi koy wane bu baax a baax a baax di wax tur artiste yëpp di rek li mooy yoon a booloo lii bu amee ñëpp di jug xam nga def mobilisation jàppalante parce que joomul kenn waaw joomul kenn dañuy ñaan ñaan yàlla nag yàlla jeexal ko léegi léegi te yàlla mun na ko yàlla rek la ñuy ñaan ndax moo mën moo yor lépp jërë ngeen